لما عدد عشري لما عدد عشري وحاشا وحاشا وكلا كما سأقدر تسمعني كل ذلك لم يكن تأمل ما ترى waxtaan ak il xijri Cheikh Hadj Abdou Aziz Si ma ngay way magam sëñ Babacar Si way magam sëñ ma nga naan ko soppay sëñ Habib Mbeng Babacar Si faju aajo gaaw na fa mbay ci suuf dàqul gaaw na fa mbay laaj ko gaa yi daal di ke mbay fi ci biir ci waa woo sëñ Babacar Si muy yeete tey ginde man qad jaa yasalu woo diini la kuréel waa jaaji yow jëfam gaalu sariya yi Babacar Sy mooy capitaine ba mooy kokala kuy tukki dugg ci insha Allah azim yasil wasiluhu ahmad al mansour si rakab warillahi xaaliqina fu mu toll tey rafetal cheikh al xalifati samaam bahra al ilmi wal xikami شريعة آبنا لغير اسمه ثم صلى سيدنا بكسميات كي كند من قد جاء يسأل عن دينه لكريم yow jëfandu ku bëgg sa aajo fajul yëkkati sa loxo ci barke Sëriñ Babacar Si faju aajo gaaw na fa bay ci su dàqun gaaw na fa bay